ñu dem ci ruur ah, foofu la hmm? min ha bokk na ca al musabbaatu musabbaat subhan ci suba wa masa ak ci ngoon lañ koy def laaj ko góor yàlla yi xikaayatul adaan dégg nga eh, maana nettali ak nodd maana bu ñu allahu akbar nga ne allahu akbar bu ñu ashhadu an laa ilaaha nga daal di koy waxaat su demee ba ci hayya ala salaa nga ne laa hawla wala quwwata illa billah bu waqaaxi alal falaax nga ne la xawla wala quwwata illa billah bu waaye maanaam bu na digi jeexee dégg nga wax li nga war a wax allahuma rabba hadi daawati taamma wa salaati alqaa'ima aati muhammadan alwasila walfadila wabaathu maqaaman mahmudan allati waadta loolu it lu baax la ay daan ba léegi moo tax mu ne ti saa ngay boram ak roy ko wax nga wax anwaau adkaarin ay xeeti adkaar mooy dikar ata dikk nañu fil madhabi ci madhab bi waaw mooy ci tarixe bi bokk na ci salaatu naa suñu julli ga ala rafii al mansabi aji yëkkati ko daraja mooy e, julli ci yontu sallallahu alayhi wasallam bokk na ci salaatu tasbihin jullig tasbih salaat tasbih moom la ñuy salaat tasabih wala salaat tasbih boobu itam ñi ko xam-xam nañ ko dégg nga na nañ koy jullee boo ko gëstoo rek danañ la ko wax du xej fii wa tasbihun ak tasbih kaza comme noonu di sàbbaale yàlla subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar yooyu yëpp yu baax la te dabburul quran di settantal al quran boo koy jàng nga di ko teewlu di ko teelu raai ak almaxasa jàppuwaay ba dégg nga wa rakaataani ak ñaari rakka yoo xam ne danga koy def xufiyatan ci nëbbu yenn saa yi ngay julli ñaar rakka yoo xam ne ngir yàlla rek la kenn du ko gis naqlul xutaa ak tuxal ay jiigu di xool ay jéegu nga jëm ilal masaajid di jëm ci jàkka yi di julli ji loolu baax na de yooyu yëpp yu kafiru day effacer alxataa ay bàkkaar dégg nga loolu baax na de mu ngoog incha allah